loolu mooy danger bi li ñuy wax la forme du lion ñu bari c'est des partis c'est comme coach c'est des partis partis yoo xamante ne. Grégoire li muy wax dafa mel ni moom laa remarqué ci yow. non peut bi la. ah ok moi je travaille plus de ah, quoi. tànk yi dafa sew ko. non non gis ma tànk yi kii laa gis ci kaw quoi. <laughs> Ah, moom lay expliqué bari na. Uh-huh. loolu loolu bari na loolu boo nekkee coach sax loolu nga war a njëkk bañ mais bari na. benn bi liggéey le bas du corps. le bas du corps c'est la dénominateur commun de tous les sportifs te moom mooy supporter dangay mel ni dafa mel ni comme li ma la kër kër bu amul fondement bu amul poto yu baax day teel a daanu et même booy vieillir sa bas du corps bu fekkente ne amul doole wala amul forme bu baax booy màggat da ngay sëkk. te tànk mooy nit. tànk mooy góor tànk mooy nit noonu laa ko mën a expliquer moo tax ñu bari boo demee salle da ngay gis pec dos biceps triceps rek. nga gis seen kaw gi def ni comme une carte ngand ni mm. tànk yi tuuti parce que ñemewuñu ko liggéey lu bari dañ koy bàyyi et c'est très dangereux et nous par contre on est des sahéliens ni ñu bindee fi ñu féete mm. on est des boo xoolee des fois suñu molay ak suñu forme bi ni mu mel bokkul kon nit ni muy liggéey ci kaw noonu la war a travailler le bas forcément surtout le bas sax moo ko war a gën a emporter de plus parce que tànk bi mooy dox tànk bi pour nga am condition physique c'est les jambes boo yëkkati c'est les gens boo amul assise doo ko mën soo bëggee soulever doo ko mën soo bëggee pousser doo ko mën donc il faut nga am condition physique te pour nga am condition physique cardiovasculaire moo la doon jox mhm. préparation physique moo la koy jox préparation physique bi ëpp bi ñu xam daw la vélo la mhm. corde la mhm. footing yooyu yëpp tànk moo koy def